am na ah, dimba xalis boo xam ne ren ren gàmmu du am ndax xaaroon ngeen ni décision mel ni ko waaw xaaroon nañu lii parce que juma ku tëj juma julliwuñu juma julliwuñu jàkk yi kon war nga suur ne gàmmu du am loolu xalaatoon nañ ko bu yàgg ñun avant bi di wax sax xamoon nañu ne carrément ne loolu mënut a nekk parce que mënoo tëj jàkk tëj juma te yooyu gën a nekk farata nga nga nga naan da ngay gàmmu lolu kon ñom xam xamoon nañu ne man man dé sama sama bopp xamoon na nek lolu sey bi mom lolay déclarer dañ encore wona naa encore talibé pour ñu gamu ku nek gamu ak. que gamu sa kër. wa lolu lolu moom loolu mooy dëgg. waaw lolu moy yoon ku nek mën nga gamu sa kër. gamu sa kër yom na gamu dem Tiwaawan timit dañ ko doon woté pour ñëpp ñëpp ñëwando fa rek waaw. may mais sa biir kër yow yak sa njabot ngeen tok di tuddu di di julli ci sayidina Mohamed ah di eh, def def def say def say say wérd def say ñaan yaag say njaboot yaakaar naa foofu la gën a daganee sax foofu la gën a daganee. man man personnellement je m'y attendais dans la mesure où que julli moo gën a doon farata ñaara que gàmmu moo mën a ay ajjuma yu bari yoo xam ne ñu ko. Quand vous vous gàmmu man je m'attendais à ce que kay hmm. ah, à part ça sa opinion C'est hmm. na certainement am na ñoo d'une part du arrangé comme je connais avec les commerçants qui sont emprisonnés

pour on était quoi pour pour waaw uniquement pour pour gàmmu bi. d' accord d' accord. loolu daal côté boobu daal. laa si kii mais nag en tant que musulman et tidiane. aw ma ci ñaari xalaat naan damay def lu ma def man tubaab laa def bu ma dem sama suñu kër la sama kër la. encore nañu def gàmmu bi dans l' intimité familiale. waaw kooku mën naa nekk ndax hmm. gàmmu. Hmm jàng alquran la ñaan la ni ku nek sa mbir nek man ko fa def je ne pas hmm. de problème xeyna ah, nak bon comme on est tellement eh, habitué à des gamu à des magal dem fa waaw lolu rek la ah. lolu rek la j'ai fait mes sama étude bop rek la xoolu julli mo gën a doon deug la dans la mesure comme moom foog ñu mën a tere ay ajjuma yu bari yoo xam ne julliwuñu ko. te jàkka yooyu te jàkka yooyu yëpp ñu Tivaouane. je ne vois même pas je m'attends je m'attendais à ce que di